chambre d'accusation confirmé décision bi juge bi jël loolu moo taxoon bi ñu jógee ci loolu ñoom jamono ji nii euh, li ñu bëgg a def comme Modou Ndiaye c'est un enseignant dafa war a dellu ci classe yi jàngale bi mooy pourquoi pas ñu jox ko bracelet électronique parce que loolu bekk nekk na beneen option boo xam ne comme li dañ koy téye ci kaso bi te détention provisoire la nekk lañ ko libéré jox ko bracelet électronique mu mën a dellu ci classe yi jàngale ndax gis nañ ne Sénégal jamono bi ñu toll nii dafa am déficit enseignant kon gisuñu intérêt tey ji jël enseignant dugal ko ci kaso bi euh, leneen li nag mooy que ne euh, Modou Ndiaye de fii lañ toogoon ay mbokkam nañu bu ñu waxee ne diw baax na mbokk yaa ko waaye yaakaar naa aussi d'après témoignages yi nga xam ne jot nañ ko ci ñenn ñi nga xam ne dañ koo jege wax nañ ñu que ne Modou Ndiaye yemul woon rek ci jàngale mais école ba nga xam ne fa la nekk tey jii nii am na réalisation yoo xam ne jot na ko faa lu mel ni clôture école ba moom moo ko def avec ses partenaires xale yi nga xamante ni tey jii da leen doon jàngal moom yemul ci yemul ci enseignant mais da doon éducateur la en même temps parent d'élève la considéré boppam ndaxte defoon na de telle sorte que avec ses moyens propres mu assuré ndékki xale yi di leen jox ndékki saa yu xëyee balaa muy def tuur te loolu noonu tey jii nii xale yooyu amatuñ ko leneen li ñuy euh, tëjee ci point boobu mooy que ne école bu mu nekk jamono jii ñaari enseignant la am kon gis nañ déficit enseignant bi Sénégal am tey jii école bu am ñaari enseignant nga jël benn ba tëj ko bu fekkee ne école ba tëj na na nga jàpp ne yow yaa ko tëj yow mi ko dugal kaso Euh, leneen li ñuy terminer nag mooy que ne euh, il faut que ñu xam que ne département Bambey yemul ci gëne Modou Ndiaye rek la am comme détenu mais xëy na temps moo ñu ko dul may moo tax mu ñu dugg ci di citer le le ñu ñëpp seen cas fi mu nekk tey jii mais mën nañu jël exemple ku mel ni Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Seck étudiant boo xamante nii. dafa waroon soutenir son master 2 en droit à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ba jamono ji ñuy wax ak yéen tey ji mu kaso te kenn mënu laa wax lan la ba war faa mën a doon donc ci gàttal daal loolu lañ amoon comme information pour andi ko ci situation détenu politique yi ci département Bambey encore une fois euh, comme dañoo toll ci jamono boo xamante ne nii eh, dirigeant yi nee nañ ñoom bu ñu soxlawee nañ leen ñaan ci njëkk. encore une fois dañ leen di ñaan ci njëkk dañu libéré doomu jàmbur yi mais rawatina Modou Ndiaye parce que père de famille la mu njaboot la mais daf enseignant la doon koo xamante ne nii dafa servir am lu mu joué am lu mu der te loolu noonu tey jii man damaa yaakaar ni ku ñu waroon a teg tey di ko honoré la mais waru woon doon ku ñuy persécuté euh, maa ngi jégalu nag ci kàddu bi loolu lañ bëggoon laa jàllale léegi. nga fàttali je vais donner la parole à mbay Mbaye Mouna Sarr activiste membre Mm. Maintenant, je vais donner la parole à notre camarade euh, du collectif, euh, Cheikh Et pour terminer aussi, voilà, je la parole. Moi, vais inviter les parents des détenus qui rejoignent le collectif des, euh, parents des détenus du Sénégal. Parce que le combat, nous aussi, nous avons un combat. nekkul ne loo xamante ne liggéey bi ay bonne volonté ñoo ngi organisé wu ko mën mais bu ci parents yi aussi parce que koo la bëri moo tey ji amul kenn ku la te a wax tey ji Sénégal ka boo xamante ne nii même buñ tëjul sa euh, sa borom kër wala sa kër koy nelawum doon di yeewoo doom moom tëj nañ sa proche boo xamante ne nii amul tey Sénégal ku fi yeewoo te jaaba ñëwoon prison yi kon encore une fois dañ leen di invité waat à ce que ñoom ñu rejoindre collectif boobu noonu pour ñu mën a mëneendoo seen combat ci jàmm ak salaam parce que Sénégal ci jàmm lañ ko fekk te ci lañ ko bëgg a bàyyi. ñëpp ñu fi teew donc di présenté wu man la Cheikh Abdou membre du collectif voilà di remercier Maymouna si présentation bi ak explication bu leer bi donc di revenir si deux points rek juste pour dire que état actuel école Sénégal ne mérite pas ça parce que sanctionner un enseignant. c'est sanctionner ses élèves et que xam nañ présentement le Sénégal dafa déficitaire en enseignant donc il y motif bu war a tax ñu casabi comme nous mu ko waxee c'est un jeune de Bambaye, très exemplaire il a toujours su donner pour Bambaye. tey ñi nekk si biti ñi nekk bitim réew ak ñi nga xam ne nekkuñu bi Bambaye. lépp c'est grâce à Mamadou donc loolu euh, war na tey salle bi waroon na fees del mais ñu ngi relancé appel di woo képp koo xam ne doomu Bambey la bépp yaay ak bépp jeune boo xam ne yaa ngi moom yéen bokk génération ñu ngi ci mais ñu gën a doole parce que euh, lii lépp intimidation rek la parce que man je le dis très fort Mamadou defu fi wala moo wax fi loo xam ne di war na mën a jógee Dakar ba ñu koy non non ay loxo ñoo ko def ñu ko def xam nañ ko donc ñu ngeen ñaan par clémence ñu bàyyi ko mu dem liggéey dafa am njaboot dafa am waajur dafa am ay devoir yu koy xaar et loolu dafa nekk demande boo xam ne doomu Bamba yëpp ñu ngi koy laaj te lépp loo xam ne tey laaj na ko ñu dinañ ci taxaw incha allah wala ñu dem léegi li nga xam ne ñu ngi koy demandé aussi nos autorités locales mooy li soxla may mën a wax léegi nous demandons clémence parce que situation am na fu muy toll ñun ce qui nous mooy on fait focus pour la libération de Modou